Abu Cubalo la man ñoom lay topp saasune su ne kan laay topp Souleymane Jules Jules mooy Souleymane Souleymane mooy Jules sama xel day dem ci yonente yàlla Souleymane maanaam kooku voyage moom bu ko mësaane def day gaaw te xam naa ne turandoo day doon turandoom yow fu ne ngay voyagé tey yaakaar naa ku demoon Touba wala Tivaouane fekk la fa bu la fa fekkul dafa fekk si équipe man Abu Cubalo nag maa ngi ci ki nga xamante ni mooy waa kilik seen clique bi nga xamante ni lu fi leer fii lay leeree maam li gars yi naan xoyom xoyome xoyom xoyomul fenn fu dul fii ci seen clique boo ko xoolee nag mandarga mi ngi nii mandarga bu garaaw la doy maam c'est que mandarga bu yéeme la li la ciy gën a yem mooy drapeau Sénégal parce que li xew ci réew mi yëpp la lay wax du la bàyyil dara bépp actualité tey boo weddee li ma lay xoolal fi ñu taxaw nii fii la gàmmu gi dooree lew na ay ca gars